lay tee a jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna Jaara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 fàttewuñu sablage bi ak modèle yu taaru ci noonu ñu ko bëggee C3S indil na leen itam ay xeetu assemblage doubal vitrage ak isolation phonique thermique yu leen di indil noflaay ak dal ci seen bërëbu liggéeyukaay wala dëkkuwaay

ndax bu la sëriñ bi gërëmee te sa borom kër gërëmu la doo am yàlla doo am yonent doo am ngërëmu sëriñ Tuubaa kon na ngeen góorgóorlu baax fi may jeexale ngeen baal ma kàddu yi soxna bu Buso kenn ku ne xam na ni moom bi muy ñëw kër Cheikh Ahmadou Bamba xaar euh, Mamour Anta Sali dafa am lu mu jaayante woon bi muy waaj di dem ñu ne ko waajal mu dem jàppi ba ñëw daal di ubbi kaamil bi yem ci aaya ji mu jooy aaya bii dey maa kaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatimi nabiyin mu jooy bara ngooñ faste ñu ne ko looy jooy mu ne aaya bii moo ma teema am fi ab yonant waaye dinaa fi am koo xamee se ni dina am lu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ko nekk moo daan toggal Mamor Anta Sali radiyallahu anhu laax bi mu daan ndékkee ak daan xewloo am benn bis Mamor Anta Sali ni xaaral ma natt ko ndax jigéen yenn saa yi mu ngistalu yenn saa yi mu rëy rëylu dinaa xëy nag takk sama fas dem ca tóokóor ba su fekkee fekk si na ma fa ma xam ni yàlla rek a tax su fekkee fekk si ma ma xam ni ki doon ngistalu maam morant sëli daal di war fas wi xëy dem ca tóokóor ba soxna jaare néew ko foo jëm daal di dem génne waxandaam wa nga xamee se ni bu doon tey suñ jamonoy tey ji armalu si la mu di koy toj bi fas yéene kafe gi top tàngu membre ant sali top, ko top. di ko korba. di ko topp ba ca tóokóor ba mun ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbàkke bu ñu xaman da ngay teel a ñu bi nga xewlu ci mbàkke ñoo ngi jéggulu daal di yenn ku daal di jël satala gi ni ko defal dékkal ma raxas nga raxasu mu daal di raxasu ba pare mu daal di jël cufaay li boole ko ak soow mi daal di koy jaxase daal di ràcc laax bi daal di ko ni ko bisimilah xewlul Mamor Anta Sali daal di jël baaraam bu tedd ba daal di koy cëpp ñetti cëppi di ko suur naa mu ni ko bu nu xamaan ni naaje gi moo tax doo mën a xewlu ñu teel koo andi mu ni ko biir kat ñeenti kontaan te mënu ci am damaa kontaan sama diggante ak borom mi booleeg yow kontaan sama diggante ak rasulillahi kontaan sama diggante ak say bokk waaye nag kontaan sama diggante yow mii maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se ni nag la tàmbalee fa nga jógee woon ca kër ga ba egg si fii lu toll ni topp euh, fépp suuf yu toll noonu na ko topp soxna si ni ko amiin mu ni ko maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se ni ku munta séparé suukar si ak ak ak soow mii doo ko mën a séparé rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko amiin mu ni ko maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se ni maanaam ni jant di leerale noonu lay leeraate muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mun ko amun kon jigéen ju ne war naa góorgóorlu baam ngi digal la borom këram wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu lay teema way fi ngeen jilin sewey ma jëmalul boppam soxna jaara